maa ngi lay char bu baax a baax a baax a baax waaw alhamdulilah sant sant rek ñu sant rek moo ñu war dañoo war a gore ba xëy de sant rek sant nañu sant bu baax nañ ko sante yàlla nañ ko nañ ko nañ ko sant yàlla dund ko ci ngor waaw kontaan naa trop bi ma gisee sa audio bi j'espère yaa ngi ci jàmm fi nga nekk amal jàmm ju baax kii ne moom wàccoon ak ñun ñu nag ñoo ci des baax a baax a baax a baax waaw alhamdulilah sant sant rek ñu sant rek moo ñu war dañoo war a gore boo xëy dee sant rek sant nañu sant bu baax nañ ko sante yàlla nañ ko nañ ko nañ ko sante yàlla dund ko ci ngor waaw kontaan naa trop bi ma gisee sa audio bi j'espère que yaa ngi ci jàmm fi nga nekk amal jàmm ju baax ki ne moom wàccoon ak ñun ñun nag ñoo ci des la première réaction de Wally Balago Seck suite décès euh, soxna euh, Kiné Diouf Diaga mu baax mi muy sant rek ngeen ko déggee ci kàddu yi noonu muy wax que ni sant rek sant rek moom moo ñu war ndax yaayam ju sell ju baax jooju wàccoon na ak ñoom waaye wàccoon na ak aussi sénégalais yëpp. ak képp koo mhm. xam ni jigéen mhm. nga. war nga xam ni jigéen dafa war a wàccoo ak ay doomam. maanaam mhm. ay njabootam waaye tamit jigéen dafa wàccoo borom këram. jigéen dafa war a wàccoom tamit dëkk ba mu ne. parce que boo defee lu baax wax lu baax ji ko ci réew mi. Euh, day waral kaddu say doom di doon kaddu yi nga xam ne balaa ko Seck moom la yëkkati. yaa wax nag day ànd ak fierté. xam nga lu tax waaw euh, liñ naan euh, bàyyi jàpp kii euh, bàyyi fi naqar de mhm. bàyyi fi gàcce tamit waaw dañuy dañuy ànd rek sant yàlla mhm. parce que bu fi bàyyi woon gàcce dina demee neneen parce que mhm. ku am ngërëmal jëkkër ngërëmal borom kër ni ma ko bëgg am say ngërëmi doom am sa ngërëmal réew askan wi parce que la mu doon def ci social ñëpp xam nañ ko mhm. la mu doon def ci yërmande ci doomi jàmbur yow mii souligné nga loolu ñëw këram mu jàpp la comme waali am ci yow reconnaissance euh, xàmmee la mhm. am fu mu la teg mhm. ba loolu dafa daw yaram loolu yaay ju baax moo ko mën parce que jigéen ñu mel noonu dafa jafe am na ñoo xam ne tey bu ñu gisee seen xaritu doom yi dañ leen dàq ci biti bu ñu gisoon waali dem na ba mel moment benn débordement bi yaayam moo ko nangu parce que waali ku nekk day dugg këram mhm, mhm. muy xarit muy am di jaam muy noon muy bañ ñëpp te du jàdd kenn te yaayam dafa nekk jigéen bu yaatu boo xam ne dafa jaaxaan ñëpp tëdd ci kawam mu jël doomu jàmbur yëpp parce que dama gis réaction di Diop sama yaram bi daw ci ni mu comporté woon ni mu waxee mu mhm. dégg caat sec wax même chose nga xam ne jaaga daal yàlla nañu ko yàlla fayal euh, lépp luy jëf ju baax yàlla na ko suñu fayal boppam sunu yaay ajaratu jaaga yàlla na nañu ko sunu borom fayal bu baax yàlla na gisanteeg soppeem ba rasulilaay gën di mbindeef sallallahu alayhi wasallam moom rek la bëggoon wax naa ni keroog biñ may laaj man leen moom moom loo bëggoon am ci moom rek bu la neexee nga def ko dil sax mais boo ko jaaree ci yonent bi rasulilah am ko am na vidéo bi mu doon def ak Bambali Seck sax Bambali ne ko waaw Bambali ne la woy bu rëy mu ne ko jarul nga may woy boo woyee yonent bi rek mën naa la cee may un million mhm. xam nga loolu rek dafa am lu mu lu muy wundu waaye tamit dafa am reconnaissance ak place boo xam ne dafa marqué empreinte am ci bëgg yonent bi mhm. gis nga yonent boo ko bëggee amul caaxaan ki bëgg yonent bi boo ko xoolee moom ci boppam dafa am melokaan bu muy mel mhm. kon macha allah bu ñu jooy soxna si nañ ko ñaanal yàlla nañ ko ñaanal lépp lu nga xam ni lu mu doon def ci lu baax yàlla fay ko ko loolu rek la ñu mën a def ñu delluwaat wax alhamdulilah ala kulli haal gannaaw bañ ko ñàkkee ñu xam ne yàlla moom mi nga xamante ni mooy jël ko mm-hmm. neex ci waxtu bu ko neex euh, yàlla mooy def ay màndarga rek ñu naan mm-hmm. lii dal na diw bopp metti na ko wala tànk ba dagg na mais yàlla heure bu namee yóbbu jaam rek daf ñu koy naxee di ñu ko defalee ñu naan kat au moins kii kat dafa feebar wala nangam dala na ko mais nit du dee ca waxtu wa jotul waxtu woo gis ak nit dee ci waxtoom daa jot dafa jeexal kon ñun ñëpp fa la ñu mujj euh, mooy jëkk te mooy mujj kon am na ci loo xamante ni nañu dellaat ñu sant yàlla yàlla rek moo sañ fekk ndey jël ko ci doom wala mu fekk la nga yor doom yar ko ba mu mat a parce que man yéeg naa lool am naa yëg yéeg lool. parce que daaw rek la sama doom bu góor dellu sama taaw. Mm-hmm. kon dañuy delluwaat sant yàlla léeg sant yàlla bi lépp lu mu wanta àndal. jaaga ko gëm yàlla da ngay gis tey bi soxna moom mi demee. Mm-hmm. da ngay gis comportement ak dëfal ak ni mu jàppee sët yi kon bu delloo ba sunu borom jël ko da ngay gis ne jàmbu nangu nga. Mm-hmm. jël na sunu borom jox ko boppam. kon lépp lu suñu borom def ko def ci moom rek njabootam tam war nañ koo nangu parce que dafa joxoon yàlla boppam mhm. jël yonent bi jox boppam kon am na ci loo xam ne nañ ko santaate yàlla parce que yàlla mooy soxla rek jël ci waxtu woon nag du tàggu kenn te waxtu ko bëggee def ko kon nañu santaat yàlla ñaan li nga xamante ni gunge bi nga xam ne moom la ko doomu àbb nar a gunge képp kuy dem rek fekk ñu taxawu la gunge la noonu yàlla na yàlla dafa àjjana di këram euh, àjjanay firdaws yàlla àtte ko ci yërmandeem mhm. lenn fi rek rëccu lu mu fi doon def ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam messieurs dames il est 21 heures passées de 21 minutes parlons autre chose restons toujours ci politique bi euh, parce que Cheikh Tidiane Dièye tout le monde le connaît bokk na ci leader yi nekk wala yi gën a jege Ousmane Sonko nekk ci parti boobu nga xam ni moo di parti ex Pastef euh, ñu bëri ñu ngi wax rumeur dafa am que ni dañu ko wax mu retirer li nga xam ni euh, moom moo di candidature am moom mu daal di koy refuser catégoriquement loolu nag ay polémique la yoo xam ne gis nañ ko ci toile bi yenn si ay site internet ak ay këru taskatu xibaar doon ko wax julli gi euh, Cheikh Tidiane yi génn na wax que ni loolu amul euh, convocation réunion bi ñu waxoon di sax ci loolu lañ ci waroon àddu euh, jot na ci jox ay leeral yoo xam ne ay leeral yu am solo la te ngeen mën koo xam ci Feeling Dakar chaîne bi jiitu ci wàllum people ak politique yaa booy Pastef am na lu toll ci ñaar ba ñett candidat yoo xam ne danañ ci élection présidentielle yi mm-hmm. est-ce que retiré bii ñu wax Cheikh Tidiane Dieye mu retiré candidature am ñu boolu seen ñoom ñëpp nekk ci ginnaaw Bassirou Diomaye Faye loolu stratégie politique bu baax la wala est-ce que ñoom ñett bu ñu demandoowee du gën a indi aussi doole bañ jàngat nga ciy am. waaw mais <laughs> mais loolu stratégie bu baax la ñi xamul politique ñooy wax loolu. Mhm. kon lan moo tax tey Mame Boye Diao dem. lan moo tax keneen ak keneen dem mais pourtant Amadou Ba day dem. te moom mooy seen candidat moom moom mooy seen. Boun Abdallah Dionne day dem. mais lan moo tax ñu def loolu. mais stratégie la waaw ñett la ñoom bëri mais tey bu ñu demee bañ na tey deuxième tour la mais ñu toppoon ci ginnaaw ñoom dañuy jël seen pot këpp ci li ci nekk. Mhm. mais pourquoi pas mu war a mën a dem comme ñëpp. parce que tey APR nekkul ne Amadou Ba rek la Macky Sall choisir ñeneen ñi ci la ñu bokk. Hmm. bu dul tam dañoo bokk feneen di ko nëbbatu parti boobu la ñu wuyoo kon lan moo ne ban inconvénient moo am ci Cheikh Tidiane Dièye taxaw moom war a mën a taxaw ne day dem loolu wàññiwul dara. dara nekku ci mais bu parti bi déggoo ne na retiré carte candidature moom. est-ce que mais loolu lu ñuy pour respecter carte parti parti mais loolu lu ñuy laam-laamee la ñi nga Pastef na ñi ñi ci bokkul ak ñi nga xam nekkuñu sympathisant ñooñu ñooy wax. lu ñu xamul mais Pastef lépp lu ñu def dañ cee yëgu. dañ cee kon APR ni ñu taxawee ne diw ak diw ak diw daa bokk. Mm-hmm. diw ak diw day bokk diw ak diw du dem. du fii lañ toogoon ne Abdoulaye Diouf Sarr day dem élection. Mm-hmm. anam est que dañ koo dégg mu wax prononcé wul. keneen ak keneen bëggoon naa bokk mais prononcé wu te ku ci nekk sa yoonu bopp nga jël diisoo ak keneen est-ce que boo diisoo woon ak keneen doo ñëw taxaw na parce que dañoo seet ñi nga xam ne au moins bu ñu taxawee ne dañuy dem élection kii diw mi mën naa am dara. suñu choisir Mame Boye Diao xam nañ ne moom am na lu mu mën a am xol daa du dëgg. Mm-hmm. ñu choisir Boun Abdallah xëy na am na lu ñu yaakaar ci moom as tour du dëgg. Mm-hmm. kon bu ñu taxawee tey Cheikh Tidiane Dièye taxaw moom war na mën a am dara fenn foo xam ne moom lañ fa gëm. bu ñu amee ngëm-ngëm ci moom donc bu ñu demee ba xalaat ne deuxième tour dina am mais war na mën a jël li mu am delloo ko Bassirou Diomaye delloo ko buum ca mbooy mbooy lenn stratégie la rek. Hmm? donc amul benn réeroo ci Pastef amul benn réeroo. mais du du du du duñ grignoter ay euh, euh, électorat wu Pastef par exemple ñëpp bu ñu maase woon na Pastef benn candidat booba am euh, boobaa électorat wu Pastef day gën a yokk. dama ne mais doo sa xol dina nekk ci votel Cheikh Tidiane Dieye votel Diomaye nan ngay def. sa kenn nga war a mën a votel non non yow comprendre ba tey dama ne. sagam ah, laaj la rek waaw waa boor bee. ñoo taxaw am ñu bari ñu teg. teg hmm. leen ci ginnaaw Amadou Ba. mais Pastef tam war na mën a am loolu. Ah la question na ngëm-ngëm rek ak xam lii fan la jëm. Mhm. boo xamee fu mu jëm rek ndoo sonn. ok buñ ko awalee yoon dinañ xam mbir mu fan lay tere waaye yuuxu dana jik fuñ ko foogeewul. ok euh, euh, Bassirou Diomaye Faye naka nga gisee candidature am su ma jumoon moom mooy première euh, nit wala histoire politique nit bokk ci ay election te moom ma nga prison naka lay demee dañ koy bàyyi mu génn campagne wala day wut ñu koy campagnal loolu aussi. loolu moom jaaxal na sénégalais yu bëri yow sa njàngat peut-être. sama njàngat ak sama xam-xam dama ne. sangam Ousmane Sonko moo nekk ci prison bee ñu tëj. mais Ousmane bokkul campagne waaw may ma rek danga may déglu rek. wax moom am daaneel. waaw xam nga man sama problème ak yow même auditeur dañ koy kaas su wax day am daaneel. waaw man dama lay damay laaj rek ma daaneel nga xam. fan laa jëm parce que damay doog a commencé. kon ñëwal lañ barricade ñëpp di ko topp. Ousmane ci prison ñëpp di ko topp. Hmm. ñu ne 111 ñëpp daw. boobu fan la fekk Bachir. Hmm. du ci du ci prison bi. te terewul parrainage am kan moo ko parrainage fii amul. Hmm. donc bu ñu demee bañ ne xolal même bu newoon Bachir mu nga ca kaso ba buñ ne prip mu raw leen ca kanam. Hmm. loolu moom amul laam-laame bu amul tappale amul njuuj naaj amul dara moom xam nga ne Bachir mi ngi ci kanam mu ñoom ñu ngi ci ginnaaw kon donc loolu du kaa mais question du tëj bi musuñ gis candidat boo xam ne yow parce bu ñu valider candidat.